man duma jaara de maa la mer na bandi sa kanam eh. yow lan ci yi cim sa kanam mais ma dara femme waaga jiba kii dëmm la <coughs> coroxaan sax <coughs> yow dëmm nga yow <coughs> lala ñu sëñ papa dafa feebar yooyu lay def mais sa papa du ya, dee nga naan ma sa papa dafa feebar yow ya, nga taxaw nii say bët jàkkaarloo ak man ñu may toroxal di ma humilier nga toog sa papa après metti nga ma man ngay man eh man boo ma muduku ci kër ma dugg ci kër papa mënu ma faral eh luy loolu yow ya, li ma lay jox sa papa da la jox yow ma lay yëkkati ba ci kaw yobul la ba ci kaw indi wala ci suuf sa papa da ko mën ci yow mën nga gëna wara fogu ko sa papa imbécile da ngay da ngay da ngay retaan wala da ngay joy da ngay joy ni ngay joy an say rangoñ ah xaw xam nga la mo la may sans li ñaan jigen kenn du ko door te li ma lay wax rek danga xaw a nuróox sama yaay quoi su ma demee ba lay dóor su ma xoolee sa kanam rek damay gis sama yaay moo tax bëgguma la dóor gis nga ma fiye ma fiye toi loo kii dóor dëgg yooyu nasaraan volcan buy nelaw bu ko yee bu beneen yootee sa xef bi bu dagg continue continue continue bu dagg de bul de. ñëw waaw dégg nga ñu dem ñu dem. Fallou xoolal fii. ñu dem ah. gis nga bu beneen yoon tee. gis nga bu beneen yoon tee. pare nga ah. bu retaan waay.